yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. di jaajëfal bu baax a di leen nuyu di leen ziar bu baax di leen ndokkeel ci weeru sell wi nga xam ne ci lañ nekk ni di ko defee fii ci këppaaru Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamb ci jumaay Touba ci taxawaay bu am solo yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mu ngi koy taxawee. di ci faral di feggo ak kuréel yu fasante ko nag ci biir dëkk bi nga xamante ni ñooñu itam yàgg nañu béy seen waar ci këppaaru Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba tey jii nag ginnaaw bi nga xam ne déglu ñu waxtaan waa am solo ñëw fii ci barab bi nga xam ci la ñu dogee ndogu ci la ñuy dalal nag daayira bi nga xamante ni mooy daayira Matlabul Fawzayni bi nga xam ne moom la ñu xam ràññee ci biir dëkk bi moom taxawaay bu am solo boo xam mu koy taxawee am jëf yu bëree bëri yoo xam ne def na ko fi waaye nag lëkkaloo ci nag ak euh, daayira Muxaddamatul Xidma ci jumaay Tuubaa gi nga xamante képp koo xamante ni yaa ngi liggéey Sëriñ Tuubaa Cheikh Bamba ci dëkk bi da am mbégte ak safoo ñu yaatal ci jumaa ji pour nga mën cee fesal sa yéene bu baax baax loo tax daayira bi ñëw moom itam euh, ñu woo ko ci barab bi foo xam ne sawar na fi lool euh, sëñ Moussa la ànd ak délégation bu takku ñu ñëw Euh, am kaddu yoo xam bëgg nañ ko jël si fa euh, ginnaaw bu ñu la nuyoo ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma euh, ñoo ngi sàkku nga présenté ñi nga àndal nga leeral kaddu yi nga xamante ni moom nga bëgg a jotal incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh daayiratu Moukhaddamatoul Khidma fi xidmatul xadim ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Mamoun Bousso mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak Cheikh Abdoulaye mi nga xam ne. moo ànd ak yéen ci liggéey bi woo ñu fi tey ñu ñëw fi ñu nekk ndongo yu ndaw ci seen biir waa daayira Matlabul Fawzayni fi xidmatul xadim eh, sëñ Saliou boole woon nu nu àndoon di liggéey léegi rek Cheikh bi Bousso bisa ngi koy fàttali ñu ñëw fi ànd ak sëriñ Fallou Lo mën nañu wax ne mu teewal fi waa Espagne ànd ak sëriñ Ousmane Gueye mu teewal fi waa Italie waaye ñu ànd ko ñun ndongalu xeebu lii ñu teewal fi daayira bi ci njiital sëriñ Omar Senebelo responsable moral teewal fi donc yi nekk ci mbal foofu yëpp yi nekk réew mi ak ci bitim réew di am cant gu rëy goo xam ne gii xajul ci jataay bi nu koy sant waa Muxaddamatul Xidma moom Muxaddamatul Xidma moom tur wi daa yóbbaale lépp jiitu gi ñu jiitu moom ni tur jiitoo noonu la jëf yi jiitoo noonu la taxawaay yi jiitoo ñu ci sant bu baax a baax a baax ci liggéey bu réy bi nga xam ne bi yéen a nga koy liggéeyal Serigne Touba waaye di ci jàngalaale mboolem kuréel bi liggéeyal Serigne Touba ci dal gi ci liggéey bi ci taxawaay bi ci sellal gi ci ak dëggu gi ak jëmmal gi ngeen jëmmal sëriñ bi loolu lépp ngeen li ko ci jàng ngeen li ci jàngal mboolem ñun dong yi xam ne ñoo ngi ci waar wi jataayu tey bi bokk na ci ndax jataay yi ngeen ñuy wootee lenn rek mooy sabab bi wannu ne kat lan nekkoon daaw ba léegi noo ngi ci te ci leen fas yéene sax wannu ne kat laxsaa yi dañu ko war a feddali ngir mu jëm kanam wannu ne kat Serigne Touba des ko war a jëmmal ci waxtu man doon wannu kat liggéey bi dañ ko war di sellal jamono yu mën di doon wannu ne lu baax doy yooyu ngeen ciy wane yooyu ngeen ñuy wan nag noo ngi fas yéene ànd yéen ci liggéey boobu di ko jàng ci yéen rek bu ngeen geesoo rek gis ñu ñu ànd yéen liggéey bi yittey Matlabul Fawzayni mooy la ko sëñ Saliou sose woon rek nee woon jenn daara la samay daara nee na woon nag sama jublu la kon nag daara yi sëñ Saliou bu nekk jublu sëriñ Saliou bu fekk see mat bu fekk see Muxaddamatul Xidma mu yor liggéey sëriñ Touba bi dana doon war a nekk ab donga ci ginnaawam kon nag ginnaaw bu ñu santee kilifa yi di sant sant leen yéen itam ci seen taxawaay sant leen ci waxtaan wu neex wi nga xam ne bii day soññee ndax thème bi tey wane na ne kenn ku ne foo taxawoon rek ba jàpp ne dara nga da ngaa war a gën a takkaas ak laxsaay gën a góorgóorluwaat loolu la thème bi firi waaye soññ ngeen ñi seen jëmmit ci waxtu man doon ngeen bàyyi seen i te bàyyi seen i kër nii ñu fi teewee tey bu subaa ñeneen daañu ko fi teewee te noonu ngeen di fas yéene continuer ba koor gi jeex kon loolu ab soññe la waaye soñ ngeen ñu ci teraanga yu rëy yi nga xam ne terale ngeen ko te dara taxul ngeen terale ko loolu Serigne Touba kon nag ñoo leen di yóbbanteem nuyoo ci kilifa yi xamal ne nun ñoo ngi seen gannaaw ànd ak yéen liggéey bi waxtu bu ma doon di déglu rek ndigal ngir ànd ak yéen ci liggéey bi takkaan nañ suñuy laxasaay yeesaan nañ peq taxawaat nañ fas na ne jëmbal liggéey bi Serigne Touba bi sax ci rek nag. ànd koog Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne aw bakka mooy ku dem ma dem ku demul ma dem yàlla na dem te yóbbaale nu day dem sax waaye yàlla na nu yóbbaale kon moom day dem waaye yàlla na nu yóbbaale kon waaw te ñun ñëpp du ànd ci loolu te yàgg fee teew déwén yu bare bari eh, ci barke Cheikh Al ak ñu baax ñi nga xam ne ñi ñoo nekk moom eh, ñoom ñëpp rek eh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu